Touba ñuy ñaanal sëñ Mountakha mu yàgg fi loolu euh, ni ko sëriñ bi waxee rek président moo ñu yebal ci bés bi ma ànd ci ak ñu ñëpp sa njaboot ministre conseil Cheikh Abdou Bali Mbacke monsieur le gouverneur de la région de Diourbel ak adjoint monsieur le préfet département Mbacke monsieur le directeur général maire de Mbacke ba conseil spécial du président de la République Bara Sow conseil économique social environnemental euh, Baye Mor Ndiaye ak sëriñ Moussa Thioune di conseil spécial aussi euh, ak fekk fi aussi commissaire bu bu Mbacké euh, Serigne bi président moo ñu yebal pour ñu ñëw jottalil ko siyaaram ci bés bi li ma ko waxee léegi sa jëwriñ bi bu ñu fa jaaree ma ne ko bés bi bokk na ci bés boo xam ne bésu ndamu lislaam la jàpp naa ni sax weesuma yoon bi ndax sëriñ bi liñ ciy wax ci taarix bi mu dellusee ci liggéey bi dëkk bii la wàccoon loolu nag jàpp nañ ne bésu ndam la ndam la ci lislaam bésu cant la waaye bésu sàkku ñaan la mu bokk ci bésu lislaam yi nga xam bés bu màgg la ci dëkk bi ak ci àdduna bi yëpp tey fu murit nekk ci àdduna bi yaa ngi màggal bis moo tax président yabal ñu pour ñu ñëw jottalil ko siyaaram cantam cant la yow sant njaboot gi yëpp euh, sàkku ñaan tamit ci bés bi ndax ni ma ko bés bi bésu ñaan la moo tax mu yabal délégation bi pour mu ñëw indi ziyaareem feddali kóllëreem sa diggante ak moom mais digganteem ak Daaru Salaam yëpp moo tax mu nekkoon nañuy egsi rotal siyaaram ngi siyaare bu baax ci bés bi di sant bu baax taxawaay bi ci wetam ak njaboot gi yëpp waaye aussi di sant bu baax ci ñaan yi di ñaan yàlla nag nga yokk ñaan yi euh, suñu réew mii suñu boroom yokk fi jàmm ndax jàmm rekk a fi xaj euh, ndax suñu waajur suñu kilifa daan wax ne loolu jàmm jàmm ko gën xëy na jamono yi naam am na dëkk bi yëngunu waaye nag jàpp nañ ne seen ñaan yu baax ñi moo tax ku fi bëgg a def leneen lu noonu rek ci sa kaw lay kaw loolu lañ jàpp moo tax président mi ngi sàkku nga ñaan bu baax a baax a baax suñu borom yokk jaam ci dëkk bi yàlla may ko wér ak kàttan ba mu eggalee yéene yi nga xam ne am na ko ci dëkk yëpp mi ngi sàkku it nga ñaan ci nawet bii ñu dugg suñu borom def ko nawetu barkeel nawetu jàmm mu mu te bañ a lor kenn sëriñ bi daal président loolu la waxoon gannaaw kàddu cant yi ak ñaan yi ak siyaare bi sàkku ñaan bu baax gannaaw bu mu nuyoo nag ziar aussi kilifaam waajuram sëñ Mountakha Bachir di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér mi ngi lay ñaanal yow it nga yàgg fi lool ci kanamu njaboot gi yàgg ko fekkee ñu yàgg la fi fekk ànd ko ak yooyu yëpp lépp luñ fi jaamu ci fan yi ci bés bi suñ borom nangu ko boole ñu ko ñun ñëpp waxuma sax réew mi yëpp waaye àdduna bi yëpp kàddu yooyu daal le président waxoon nañ ko rotal ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm Mbacke salaamaaleykum délégation bi nga àndal gouverneur ak action ak préfet Mbacké ak sëriñ Cheikh Abdou mi nga xam ne dafa ànd ak waaye moomu màggal gi ak mboolem membre délégation bi nga àndal waxtu wi dafa jege moo tax mënuñoo lim lépp waaye sëriñ bi bég na lool ci seen dikk gi ndaxte bis bi li nga ci wax day bis bu rëy rëy e, ginnaaw nag maamam la ko Sëriñ Tuubaa jagleeloon muy maam Cheikh maam Cheikh waajal ko digal ko waajuram Sëriñ Moodu Maamun mu njëkk koo def nga xam ne maam Cheikh Anta nam ko bëggee woon daal jotu ko na defe waaye doomam nag di waajuru sëñ bi moom la jox ndigal li ne ko yow am nga bis boo xam ne bii moo jar a màggal mooy bis bi sama mag gi baax ji ñëwoon ci sama kër gi wàcc fi euh, bis boobu moo jar a màggal fekk mu dégg màggal gu amoon foofee la tàmbale sëriñ Mood Maamun di ko woote di ko màggal muy gën di yokk di yokk di dox jaar ci ñu baax jabootu suñ Modou Mamoun ba agsi ci moom mii tey jii mu nekk ci loxoom mu mel ni ñun ñuy xool rek gis nañ ne màggal gi yokk na lu bare bare bari ci ab teewaayam diggante daaw ren xam naa ni alxuraan ji moo ci gënoon a far liñ ci daan jàng bari na waaye defe naa ne ren lay ëpp doon foo waaw ren jàngagoon nañ six mille huit cent kaamil alxuraan waaw te lépp ngir jiital sëriñ Muntaxa ci ñaan gi waaye ñaanal réew mi mépp réew mi am jàmm kon Daaru moom li président bëgg muy jàmm dëkkub jàmm la sëriñ tubaab moo ko tuddee dëkkub jàmm kon ku fi ñaan jàmm yàlla mën na dogal nga am ko ni nga ko bëggee sëriñ bi tam nituk jàmm la jàmm rek la bëgg moo tax xumbeen yu bari eh, gënalu ko eh, kon nag sëriñ bi dégg na bég na lool ci seen dëkk gi ndax ndaw moom daraje ka ko yónni lay yore kon mel na ni président moo ñëw moom la leen jàppe kon nag faw mu ñaanal leen ndax am na bis boo xam ne bii ñëpp a ko bëgg te ñëpp mënuñ koo am muy bis bi Serigne Touba njëkk am mbëg ci àdduna muy mooy bis bi nga xam ne daf dafa jóge ci loxoy tubaab yi dellu si Sénégal kenn ku nekk bëgg koo ganale waaye Sëriñ Tuubaa dawul def dara te diisoowut ak boroomam mu diisoo boroomam ba sunu boroom won ko ne ko Daaru Salaam nga war a wàcc fekk mu waxoon maam Cheikh ne ko bul ma fekk fenn foo ma déggit na nga toog néeg ma Daaru Salaam moo tax bi mu wàccee Ndakaaru dem Ndar eh, ngir këyit yi nga xam ne moo ko fi jële woon Ndar la ko si jewoon ba Ndar mooy capital bi waaye bi muy ñëw fekk na réew mi soppi ko mu dem ndar suñu ci kayit ya bi mu dëppee weeru koor wi dab ko mu woore ko Sanosi waaye bi mu jeexee rek mu daal di wut si bi mu agsi fii le 3 janvier 1902 lay war a toll booy ba léegi nag maam Cheikh Anta defal na ko teraanga bu ne waaye Serigne Touba wàcc na fi xiwal yu ne wàcce na fi xiwal yu ne kon bu bis boobu bu doxee ba ne ci loxoom ku ko jàppale ak noo ci jàppale dana ko gis kon gis na taxawaayu président de la république ak gouvernement ak euh, ñi nga xam ne ñëpp ñëw nañ jàppale ko ci bis bi mu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal di ñaanal Serigne Mountakha yàlla na fi yàgg te wér sëriñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te wér mi ngi koy jiital ci ñaan yi di ñaanal nag bokki jullit yëpp jàmm am ci réew mi ak nawet bu naat te ànd ak jàmm sant nañ leen bu baax a baax gouverneur mi sonn na ci bis bi ndax bi ñuy def CRD CRD bi chef de service yëpp ñëw nañ waaye moo jël décision kenn ku ne mu wax a yow bëgg a jël engagement ci loo war a def ci bis bi loolu war a jàppale nam ko bëggee woon itam defe nañ ko noonu euh, monsieur le préfet jël suite bi waaye moom itam nam ni mu ko siiware fexe na ba ñëpp ñëw kenn ku ne jàpp li nga war a jàpp te loolu lépp bu ñu amutoon ndigalul président Macky Sall duñ ko man kon sëriñ baa ngi leen di sant di sant président di leen ñaanal euh, réew mi jàmm am fi xol yi dëppoo ñu ànd liggéey jërëjëf